làmb làmb gis nañ coow li ci am fan yi président Macky Sall recevoir na mbër yi dem nañ ñëw biñ ñëwee dégg nañ ñoo xam ne génn nañ def ay déclaration ku ci mel ne sunu papa Mac père Maxime Bargane def na déclaration suma ma jumul suivre nga ko mu ne Gris Bordeaux daanaka moom moo fa teewal làmb waxal fa làmb mais ñi nga xam ne ñoo fa jot a jël kàddu cité na sax ku ci mel ne per Manga ak ku ci mel ne Moustapha Guèye dañoo xaw a raay raayal prési loolu sa jàngat yow ci loolu. waaw tey rek jëli naa Xaadim Ndiaye mu wax ci lu mel noonu. jëli naa Bébé Saloum débb bu wax ci lu mel noonu. mu mel ni kon euh, wuy ji bi euh, li ñu doon xaar dëgg dëgg dëgg ay kàddu yu jooyante làmb euh, jibu fa. parce que li tax jibu fa mooy que ni làmb kenn ku ne gis na coow li ci nekk. li promoteur di daj. li mbër di daj su ma nee li mbër di daj nag mbër yu mag yi taxul may wax ndax kenn ku ci nekk yàlla wàccu la. te kenn ku ci nekk amaan na ñoom ba ñuy dem oto nga taal te kër ga nga jógee yaa ko moom kon su ma dee wax man mbër yu ndaw yee tax may wax ñi nga xam ne promoteur dina leen tëgg ñu war a entraîner yor ay bologu bi topp naaj bi di jaay ngir bëgg ëllëg may njël mbooloom bi ngir mu tëggaat ma promoteur bi koy def tam def ko ngir bon def ko ngir ngir ngir ngir ngir bëgg a toroxool leen dafa amul pexe parce que ba amoon sponsor tey amaana bu ko bu ko mbër mi laajee bii sax mu ne ko dama koy jaañee dem mais mbër yi bëgg a bëre ba des fois promoteur bi sax du leen proposé loolu ñoom ñoo koy proposé promoteur bi tëggal ma jox ma cinq bloc ma dem jaay ba nga xam ne am naa mbooloo pour bëgg a bëre kon bu ñu demee ba toog te daje daje yombul su ku ci mel ne son excellence président Macky Sall nga xam ne euh, ñu ngi koy gërëm nag ci bisu bi mu defal làmb muy 32 milliards ci yàlla ci nguuram lañ ko amee di gërëm Matar Ba ci ministère am ci lañ ko amee waaye bu dajee amul yombul ban yàlla def mu convoqué mbër yi ak lu làmb ñu dem toog waroon naa am kenn koo xam ne dina yëkkati ne ko lii may wax du pour man sunu rakk yi ndaw na ci suuf di daj ay coono ñoom laay waxal pour président bëgg nañ nga gën a wax société yi fi nekk ñu accompagner làmb ji muy sponsor yoo xam ne kenn ku nekk làmb dina nekk fa mu nekkoon ndax PPV tey bu fekkee euh, sponsor amul PPV faw mu am di ko sànni da ngay xool pexe yoo mën a def ngir mën a génn ci li nga dugal ndax làmb promoteur ak baykat ñoo xaw a nuroo da ngay jiitu xaar yàlla tey su sponsor amoon yaakaar naa ni loolu du fi am ndax jamono sponsor di am déggoo fi perpévi bu loolu lépp amul nag da ngay naan pour président yow mi nga xam ne yaa ñu tabaxal stade bi woo ñu pour jàppale làmb jafe-jafe làmb yii la ñu am. sponsor pour accompagner. ba pare stade international bi ñu ko ba léegi amagul directeur war stade bi mi ngi bëgg a màgget. Mhm. kon tey waroon na tabax bi mu tabaxee stade waroon na jobale accompagnant boo xam ne day accompagner promoteur yi ñu gën a ñeme. Mhm. ndax bari na promoteur yu tëgg tëggaat daw. Mhm. lu tax loolu mooy ñàkk sponsor. bi ci des mooy que ni ñu jàpp wax lu dimbali mbër yi. ndax mbër mu ndaw mi ngi daj loo xam ne yaakaar naa ne ñoom mbër yi mag yi xam nañu ko ndax jaar nañ ci. léeg-léeg mbër mu ndaw am combat du tal sax entraîné. topp mbedd yi di fëgg bureau yi di ñaanaatu. ngir lu mu def ci yaramam ngir lu mu mën a préparer woo c'est nga dégg mbër ne dama am ay combat supporter yi fa la leen bàyyi amuñu leen indi aw ma kaaru leen indi aw ma bii leen indi kon bi ñu demee tey bonte VIP yi war na noo wax waaye waroon na noo benn koo xam ne dafa yor kàddu mbër yu ndaw yi waxal leen ndax ndaje yombul te son excellence boobu toogoon na pour déglu bu fekkoon bàyyi kenn ku yor kàddu mbër yu ndaw yi mu ne la man damaa taxaw damay wax ci waxu kàddu mbër yu ndaw yi monsieur le président bëgg na daa jàppale promoteurs yi ndax boo jàppale promoteurs yi rek dañ ci gis suñu bopp. jàppale promoteurs yi nekkul financièrement lu muy jox nit ñi mais société fi nekk mu ne leen dugal leen seen loxo ci làmb. mais mais sax am nañ sponsor boo xam ne war nañoo mun a ñëw sponsoriser làmb. lu leer ci lu leer parce que euh, sëñ Fallou lu waaye di jaay. boo dikkee ci làmb mu jar. waaye boo jaralee daw di bàyyi làmb. kon tey bu fekkoon euh, dañ ko wax euh, son excellence. mu ne société yu mag yi ne ci dëkk bi. dugal la seen loxo ci làmb danañ contribuer ci làmb parce que loolu lañ doon xaar bi ci des ancien gloire yi bëree ba bàyyi ku ci mel ne suñ papa Pape Diop mbër gis nga ko ko feebar père Mouhamed Ali ñàkk ay mooy def feebar man suñ demee tey ba père Mouhamed Ali ma koy dem di ko defal social ak li mu daj ci làmb jaaduwul te man dem naa defal ko émission làmb di ko ñaanal dimbal émission sociale. loolu yàgg ci moom. na ci moom te bari na ci magu làmb yoo xam tey souffrir nañ ba génn àdduna ñàkk taxawu. di nga ni président ñi ngi lay ñaan nga gestu suñu ancien gloire yi parce que président lu mu ci dégg faj ko. xanaa lu mu déggul mais lu mu ci dégg na ci dugal loxoom kon nag comme taxaw na ba laaj la wax ko li nga xam ne moom mooy jooyanti làmb. parce que làmb kat yaakaar naa ne boo dimbalee promoteur dimbali ancien gloire dimbali mbëri ndaw yi dimbali VIP dàmb jeex na ñoo ñooy làmb. amateur li ak mooy bis bu mag mu ñoom dagg ticket seetaan kon ñooñu ñooy ñi jar dimbali. mais nag bu fekkee nag euh, après ñi jël kàddu waxee waxeewuñ foofu euh, bari na ci ñoo xam ne ñoom nee nañ dañoo am déception ci jotaay ba. waaw bari na ci. bari na ci bébé nee na ma démb su ma xamoon ni noonu lay demee du dem. mais nag Fadel dogguma la mais est-ce que nekkul. danoo dem te waxtaanoon parce que président bu la woowee gëm naa ni balaa ngay dem war nga mën a toog bu dee benn réunion bureau sax ngeen def ko pour bu ngeen demee am lu leen yóbbu parce que kilifa moo leen woo mais damaa jàpp ne dañoo tëb tëb rek ñoom. dem seen coobare bopp. waaw loolu dëgg na parce que nan ko def coo gis nañ ko waxtaanee moo jiitu. Euh, di ci gërëm Gris ci moom sax dew ma ca. mais dégg na fa ay kàddu yum ne ñum ne làmb état gi làmb gisul lim na état làmb gisul ci boppam. wax na fa loolu. waaye loolu doyul. parce que moom dafa njiit la. njiital association. tey même bu fekkee joxuñu la kàddu sax siifal. boo siifee ne son excellence. lii may wax mbëri tax may wax dinañ la déglu nga ne ko dama bëgg ñu ngi lay remercier ci geste bi nga def tabaxal na stade ñu ngi lay remercier ci woo bi nga nu woo ndax kenn ku ne bëgg na ko waaye ñu ngi lay tàllal loxo nga gestu sunu ancien gloire yi ñu ngi lay tàllal loxo nga accompagner promoteur yi ñu ngi lay tàllal loxo nga accompagner sunu mbëri ndaw yi nga xam ne tey jii bu fekkee promoteur am na ay moyens pour ak sponsor mën a teg sunu mbëri ndaw yi dina leen ci gis lii li ma mbëri yónni lii la ma làmb yónni boo ko waxoon tey dinañ la dinañ xam ne tey wax nga ci lu am solo di jaajëfal Pape Abdou Fall. Fall parce que deewu ma ca waaye bi mu jëlee kàddu wax na ci problème mu Aline Petit mm. na Xaadim Ndiaye ma ko wax tey sax nee na wax na ci ba tudd suñu def problème Aline ba président ne loolu dinañ ko bàyyi pour mu ñëwaat ci dëkk bi muy lu rafet loo xam ne Petit Mbaye nit la koo xam ne mënu ko fàtte. nit la ko xam ne am na fu mu fekk làmb am na fu ko yóbbu bu tëggee làmb problème bi ko dal dalee ko ci làmb làmb war koo fàtte bi ci jiitu mooy bi ñu demee lii waroon a jiitu ci jotaay ba mooy sëñ moo Niang c'est un monument bu génnee ci làmb àdduna tey balaa ñu woon def dara waroon na ni nan ko defal ñaanal. ñaanal ko. mais xam nga làmb pour nu fàttali dafa yomb. mais li gars di wax boo duggee ci pale bi rek sa xel lu ci nekkoon day réer gars bu fekkee nekkoo nit ku ku bu fekkee nit normal nga. parce que pale dama ko da nga koy jàppee comme kër gi rek. pale kër la rek. Ah, boo ku normal. kër la pale man man bokk su ma fa duggoon dama koy jàppe comme suñu kër. Mm-hmm. ci benn ngi nekk ngay tëdd. Mm-hmm. ci benn lal ngay tëdd. Mm-hmm. benn nit nga pale dëkkuwaay la. te kale euh, bu ko kenn jombale sa bopp. kon dikk fa sam xel di jaxasoo ba nga la nga war a wax ko koy wax. loolu bu fekkee dugg nga pale mu jaxase la kon man moom jàppee mën a nit ku nit ku nit ku mature nga. parce euh, pale ay nit rek fay dugg. ay ay ay ay ay leneen dugg fa ay nit dong fay dugg euh, barab la boo xam ne nag barab la boo xam ne ki fa nekk nag moom la mu dénk réew mi waaye boo fa dékkee mu déglu la bu fekkee loolu moo lay jànnaxeloo kon man sag nit ma sag sag sag des na quoi sérieusement man de mënumaa jànnaxeloo. mais Fadal ñu woo axlu lamb lu tax Fadal dem. fekk ma ci liggéey fekk ma ci social ndax li may wax rek euh, euh, social bi dama ko yemalewul ak dara bu ma amee benn temps bu ndaw tuuti rek nit woo ma ci ku feebar te ma xam feebar impact bi muy def ci nit du ma ko yemaleeg lenn ma daw ne amoon naa yéenay dem président ku boo nga wuyu ko parce que wax yàlla kaay leen ñu waxtaan kaay leen wuyu si ma di nga ko wuyu ci mais amoon naa yéene bi waaye mu tombeek ma waroon dem tournage social kooku amee cancer di ma woo ma joxoon ko rendez mu nekkoon hôpital waroon a génn heure bi mu ko waroon jox hôpital wuñ ko mu am retard heure heure boobu laa waroon dem ànd a gars yi ma ne ah lii farata la ci man naa ko doxi mooy jaamu yàlla ki mooy seeti ki feebar ki loolu mooy sama empêchement. Mhm. mais est-ce que bi seen dem bi jul nekk zéro. boo du zéro parce que euh, ay na kàddu yu fa jub il paraît que ay mutuelle de santé jub na fa yu ñu leen war a jox. nee nañ dina jàppale nit ñi euh, jox nañ leen ay paas kon am na ñoo xam ne nekkul zéro ci ñoom. si moom ñoo ko waaw mais la moo doon xaar si ñoom dëgg dëgg dëgg mooy. mooy kàddu yoo xam bu ñu fa jógee. Euh, parce que chaque jour nga dégg ñu ne làmb ji daa metti liñ ñuy dagg. Ah, li liñ ñuy tere. mais tey Bira mu mi ngi fa toog. kilif Bira Sène mi ngi fa toog. ba xam li nga xam ne moom nga daan wax ci suuf. parce que gars yi mbër mun laal million mu jóg. te gars yi sax ñoom ñooy woo promoteurs yi naan ne da ngeen a war a tëgg mbër yi. kon ñoom bu ñu demee toog war nañ mën a waxal promoteurs yi lii seen jafe mais mais promoteur yi tam bi bi ñu jëlee kàddu tam war nañ wax tam ni euh, son excellence lii dañu bëgg parce que euh, Fallou promoteur le fait que mi nga am sponsor xelam day daal bu ko amul nag ay pexe doo nga lay mën a teg. est nañ kàddu. waaw Pape Abdou Fall jël na fa kàddu ci li ma fa dégg bi mu jëlee kàddu tam euh, comme seetaanuma kàddu Pape Abdou Fall xamuma lu wax waaye Xaadim Ndiaye xamal na ma ne moom lii Pape Abdou Fall wax li ko ci gën a marqué mooy kaw Alioune Petit Mbaye solo Alioune Petit Mbaye action. muy cas boo xam ne euh, ñu ngi koy bëgg fàtte. te ci làmb la bokk. Mm-hmm. te jëriñ lay mbër. Mm-hmm. yore na yoroon na ay famille mm-hmm. dimbal leen tey ban mën a nekk ay vie ñi ngay tudd VIP yëpp am na ñoo xam ne ñi lekk nañu xaalis Petit Alioune Petit Mbaye ci làmb la jaare fàtte ko nag kon dafay xaw a jafe la fa ne dafa la fa la ma fa remarqué daal ci déw ma mais xam nga loo demul dëgg doo ci mën a histoire mais daal la ma fa remarqué par rapport ñi ma jëlee après daal ñu ci bëri daal jàpp na ñoom lan fa waroon dégg-dégg dégg na ko fa